asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal euh, euh, c'est Prince Rabia artiste chanteur maa ngi siyaare sunu papa yeeg sunu yaay di nuyu réew mi bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu sunu rakk yi bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu ndaw bàyyiwuñu góor it euh, di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax ginnaaw loolu alors di profiter ci occasion bi di jaale sénégalais yëpp. Ah, ci mët bi fi weesu donc ku nekk gis na nu mu demee ah, jeunes yi manifesté woon nanu wane lu leen métti wane seen naqar ah, ba mbir yi am nu mu demee donc ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan maa ngi leen di jaale man presse xabi bu baax a baax a baax di jaale seen mbokk di leen ñaanal sunu borom xaaral leen a aljana si di mastaw sunu homme de loi yi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu di leen mastaw bu baax a baax a baax di yow si tamit jaale tout la famille Faramareen sunu papa sunu maam. Mhm. Thione Seck mi nga xamante ne macha allah bay na waaram ci waar wi. Mhm. liggéeyal na réew mi euh, liggéeyal na Afrique en tant qu'africain donc maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale euh, ses fils di ko jaale Lamine Nar di ko jaale Wali di ko jaale Alioune ak ñëpp et cetera moom yi di ko jaale it sénégalais yëpp ak soppeem yi. donc euh, jërë ngeen jëf. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal di nuyu monde entier di nuyu aussi jaspora bi Iblo la yaa from Guédiawaay comme ni ko gars yi xamee maa ngi nuyu waa Guédiawaay yëpp di nuyu waa àdduna bi ah bàyyiwuma kenn aussi di masawu gars yi nga xam ni ñoo am blessure si ëmët bi fi amoon si manifestation yi nga xam ni. Sénégal jeunesse bi ñëpp wane nañ li nga xam ne moo leen métti woon injustice bi fi amoon donc maa ngi masaw ñi nga xam ne ñoo si am blessure. aussi di jaale bépp famille boo xam te ni nii rek nga si sa doom parce que métti na et métti nañu ñun ñii aussi en tant qu'artiste. en tant que homme de parole. aussi di nuyu sama papa yi nga xam ne ñoom laa bàyyi géejawaay di jaale aussi ki nga xam ni mooy waali Seck te naan ko massa parce que àdduna ñaar la. bànneex ak naqar donc maa ngi koy jaal li nga xam ne moom la ñu bokk et di nuyu waa Sénégal monde entier bàyyiwuma kenn surtout sama waa gox ya géejawaay Iblo Wachporing. voilà euh, donc sénégalais yi comme ni ngeen ko gisee Prince Khabila en Iblo. Mhm. ñoo toog jàkkaarloog yenn fas yéene waxtaan ak yéen balaa may xuus ci waxtaan bi Iblo bala may xuus ci waxtaan wi Iblo. Euh, fàttali nga ma maa ngi nuyu suma waajur bu góor bu baax a baax a baax Alioune Badara Dieng. Mm-hmm. di ñaan yàlla guddal fanam yàggal taxawaayam ci njaboot gi di bàyyi ju baax bàyyi ju ñeme njaboot. ah mm-hmm. bëgg loolu njaboot bu ko njabootam soree sax euh, dootul xamante li muy def. Mm-hmm. di nuyu sama waa gox waa Saalum gi yëpp bàyyi ma kenn di nuyu waa Fadia aussi waa Géejawaay. Ah, sama fami Kaolack yëpp nuyu naa ñëpp ah, bàyyi ma kenn donc bu ngeen gisee tey. ñu ñëw jàkkaarloog yéen fas yéene waxtaan ak yéen mm-hmm. jamono yi passé amoon na benn mbir bu fi jàll il y a un mois mm-hmm. ak lu tegal ci affaire de son ñu koy wax choc choc donc duñu ci duñu ci focus lu bari parce que dañu war a wax ci suñuy projet war wax ci suñu avenir ci kanam incha allahu rabbi mm-hmm. ndax euh, am na lu bari lu fi nekk lu ñu war a mën a waxtaane lu dul loolu donc il faut que ñu ñu ñu am lu ñu lu ñu wax ci loolu. ndax lan son bi incha rab bi dafa fas yéene dugg sa samedi bi incha allah parce que clip nanu ko ba noppi. Mm. Euh, boo gisee nu clip ko nag du bëgg defante du bëgg dirante mbagg du dara danoo am ay soppe ñu bëgguñu euh, di ñu suivre partout euh, di xaar ci ñun ndam di xaar ci ñun lu leen di bégal. donc Sénégal yëpp dañu bëgg ah dañu suivre fépp ba tax na euh, ñoom ñoo njëkk a réclamer clip bi ñoom ñoo bëgg Prince Habib clip ko ñoom ñoo bëgg avancement Prince Habib ba tax na clip nanu ko waaye nag dafa am lu ci ne lan moo ci ne mooy euh, ku ne gis na nu mu demee woon ah gars yi am na lu nu doxalee maanaam njaay doole bu baax. Mhm. Euh, ba tax na ñu suñu son boo xamante ne ñun ñoo ko moom. woy ko nag na mu gën a dàqee woy ko na mu gën a neexee la jël ñun amatuñ ci sax accès parce que bi affaire yi demee noonu après jaar nañ ci suuf ñoom am yu ñu kii am yu ñu def on tout amatuñ si accès mënatuñ ko duggal même YouTube ba tax na kàddu yi kàddu wax soppa yi la kàddu wax sama yaay ak sama papa yi sama rakk ak sama mag yi que ni choc bi clip bi ku ko bëgg seetaan. Euh, entre ñun ak staff bi liggéey nañ liggéey boo xamante ne xool nañ ci yan plateforme lañ ko mën a dugal pour bégal suñuy soppe pour bégal ñu ñu bëgg ba tax na man samay soppee ñi nga xamante ne tey donte bi fi bi fi gëm yàlla bi nekkee ba noppi gëm sa bopp bi nekk fi ba noppi ñoom ñoo ñu dooleel. Mm-hmm. ñoom ñoo ñu kàttanal ñoom ñoo ñu may courage ba nga xamante ne du ñu ragal si lu ñuy def du ñu tiit déedéet di wax ne. du euh, duñu ndaw artistes yoo xamante ne dañ ñuy xokkatal ñuy tiit. Mhm. wala ñu am yu ñuy def ñuy reculer déedéet fu ñu viser sunu sunu sunu carrière incha allahu rabbi ci kàttanu borom jaam ñi dañu koy atteindre incha allah ba tax na ngir bëggal leen képp jaral nanu incha allah dañu fas yéene jël clip bi dugal ko sur Instagram Instagram Prince Khaby na ko ñëpp dem xaaree foofu incha allahu rabbi. bon li Prince Khaby wax moom laa ñëw pour leeral. parce que nekk nañu ay ndaw yoo xam te nii gëm nañ suñu bopp on ah. de gëm nañ yàlla gëm nañ yàlla sax laa war a njëkk jiital après ma soog a indi gëm suñu bopp. parce que yàlla moo jiitu lépp. dëgg mais c' est juste pour wax benn affaire Sénégal daam la te tën dafay war a jeex et je pense que moom la sénégalais yëpp doon dem pour xeex mooy jaay doole et jaay doole mu ngi fépp jaay doole mi ngi fépp jaay mi ngi ci kër yi. mu ngi si liggéey bërëb liggéeykaay jaay doole mu ngi si artistes yi mu ngi si mbër yi mu ngi fépp Sénégal ku ëpp doole rek moom tekkiwul dara quoi ku la ëpp doole rek jàppee na la ni yow tekkiwoo dara et or que ku si nekk rek am na foo jugee ku si nekk boo xoolee sa démb metti woon na sa tey mën a neex mais boo ñun ay jeune lañ nekk ay xale yu ndaw bëgg li ñuy def gëm li ñuy def xam nga demuñu kenn taalal ko loxo. dëgg la demuñu kenn taalal ko loxo dañuy liggéey. tey lépp loo xamante ni nii ñu ñoo ko génnee muy clip muy vidéo muy son ak quelque que soit alpha lu mu mënti demee ñun ñëw fayatal suñu bopp ak suñu staff ñun ñëw fayatal suñu bopp ak ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw fas yéene jàppale ñu ñu jëm si kanam parce que gis nañ ni ñoom que ni ñun ak ñoom mën nañoo def ñoom gis nañ ni ñun am nañu engagement bi gis nañ ni ñun am nañ gëm-gëm bi gis nañ ni ñun ku ñu pousse benn loxo rek boo ko tegee ñu dem soxlawul ñaari loxo moo tax ñoom ñu pare pour bàyyi seen yitte bàyyi seen i affaire yu bëri pour nekk suñu ginnaaw pour liggéey ak ñun donc loolu dañ ciy sant yàlla di remercier suñu benn tonton bi nga xam ni moom suñu ginnaaw muy tonton Lamine xam nga depuis boobu ba léegi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi taxaw taxawaayu kilifa suñu tonton la suñu lépp la suñu ménagère suñu lépp lépp moo ko géré sonatuñ si dara alors ko ñu ñoo doon nekk di daw ak staff yi ay ñoom Biba ay Mareetu nga xam ni suñu yaay la xam nga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fan si club beeg partout ku si mel ni tamit Baye Zal parce que depuis boobu ba léegi mën naa ne bàyyiwuñu benn yoon quoi bu ko neexoon mu ne booy yi taxawu naa leen fi ma ne waroon taxawu après jeex na jeex na mais bon jusqu'à présent daf ñuy jox daf ñuy woo du ñu nemmee ko du ñu laaj travail bi fa la toll donc ñoo ngi ak ay projet ñoo ngi demandé nag sénégalais yëpp amul kenn képp koo xam te gis nga ni booy ni mën nga leen a jàpp mën nga see jàpp si liggéey bi ñuy def ñu ñoo lay tàllal loxo ñoo ngi lay tàllal loxo nga ñëw nga jàpp si parce que ay ndaw lañ yoo xam te ni suñu yoon mën naa ne alhamdulilah. Mm. parce que ñoo ngi siy def li si war muy liggéey te talent bi mu ngi si ñun talent bi mu ngi si ñun donc amuñu lu ñuy def lu dul gën a liggéey ak ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw pour son nag di nga xam ni mooy choc choc moo indi woon polémique depuis mën naa ne si début euh, deux mille vingt deux mille vingt et bi. ba jusqu'à présent sok-sok euh, boobu noonu tourné nañ ko clip hmm. nekkul ñun suñu coobare ah ah parce que am na fu ñuy tool foo xamante ni moomatuñ suñu bopp non non boo leen duggee ngeen xool fépp foo xamante nii rek choc-choc bi jaar na fa commentaire yi chaque jour clip leen ko clip leen ko clip leen ko donc on a dépassé de l'argent hmm. def nañ lépp li nga xam ne moom lañ mën pour def ko clip malheureusement clip bi mënul daw ci seen prince xab yi donc dañuy obligé ñun staff bi ñu waxtaan si waxtaan bu clair waxtaan si waxtaan bu leer teg ko fu légal aussi pour rek clip bi mën a daw si compte Instagram Prince Khaby pour yokkaale doole compte Instagram bi di wax sénégalais yëpp ñu dem abonné un de deux am nañ tamit beneen plateforme muy Twitter donc dañ leen di jox rendez-vous ci compte Prince yi xam nga dina daw foofu ak Twitter même Facebook aussi dina fa daw xam nga di demander tamit sénégalais yëpp ñu ñëw nekk suñu ginnaaw parce que nous on travaille ay xale yu ndaw lañ gëm suñu bopp wóolu lu ñuy def et ànd ak yàlla kese nag di liggéey ko ak suñu staff bon loolu laa amoon li may wax. di wax tamit projet yi mu ngi ñëw projet yi mu ngi ñëw xaar leen ñu Iblow ak Prince Xab yi si ay yeneen i affaire ki yeneen i affaire incha allahu rabbi et gars yi sénégalais yi dinañ xam ni ñun nekkuñu pour caaxaan. te or que ay xale lañ mënoon nañu def comme suñu yeneen moroom yi lu ñuy def mais bon dañoo teg lépp ci yàlla gëm suñu bopp teg ko ci yoon bu jub et yoon bu légal ànd ak nag ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal yàlla